Sen Sport 221 dal leen ak jàmm ci xibaar yi tàggat yaram yi. Edouard Mendy di gardien international sénégalais bi leen di évolué ci championnat bu France ak football club bi nga xamante ni moo di Rennes kii xibaar yaa ngi xam ne Chelsea football club teg nañ ko bët ci jamono yile. gannaaw bi nga xamantene ki di Frank Lampard nek coach bu Chelsea Football Club mo ngi out ki nga xamantene mo war di utuwante ak Kati Kepa Arrizabalaga nek international espagnol bi nek fofu la ci Chelsea Football Club jamono yi sax di xibaar ya nga xamne na bari na ay dossier yi nek ci loxom ci jamono le mom Frank Lampard waye dal bu ñu ciukandiko ci di xibaar bi ki mu teg bët ci jamono le ngir yobbu ko fofu le modi ki di Edouard Mendy tollu ci ñaar fukki at ak juroom ñett nek fofu la ci René nek daaw mu jëlu tollu ci ñaar fukki jongante ak ñent enquête toll ci 19 bi mom ki di Edouard Mendy am 9 clean sheet moy juroom ñent jongante yi nga xamanteni anki wu si benn bal niki daw ñi nga xamanteni ñoo di wa rené ñak lu toll ci juroom ñetti jongante képp ci championnat bi ñom sax ñoo jël li nga xamanteni modi 3e place bi ba jamono yi sax ñom qualifier nañ ci li nga xamanteni modi Ligue des champions yi ni ki déwal kon Edouard Mendy bokku ci gardien yi gëna a fofu la ci championnat bu France niki daw comme ni ngeen ko xamé juroom ñent jongante yi nga xamanteni anki wu si benn bal ñàkk lu toll ci juróom-ñeenti juróom-ñetti jongante képp ak football club boobule di Rennes qualifié ci li nga xamante moo di ligue des champions yi loolu sax tax ba ñu yaakaar ne ki nga xamante moo di Edouard Mendy ak génnam foofu la ci Rennes mën na bañ a yomb gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi war a joué ci li nga xamante moo di ligue des champions yi ni kii waaye daal bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar bi club londone bi di nga xamante ki nga xamante moo di Moussa Wagué di international sénégalais bi la di évolué ci football club bi di Barcelone gannaaw bi nga xamante ni xibaar yi doon nañ laam-laami ak génnam foofule dem ci yeneen i club yi nga xamante ñu ngi foofu la ci Europe bi ci mel ni West Ham United Fenerbahçe Séville ak yeneen i club jamono yi kayiti xibaar yaa ngi xam le ne kii di Moussa Wagué bokkaat na ci groupe bu FC Barcelone gannaaw bi ngi xaar décision bi nga xamante ne moo war a jógee ci te mën na amaana sax mu des foofu la ci FC Barcelone ni ki déwén dañuy woy ci xibaar yi championnat bu France tàmbale na ni ki démb ci ajuma ji ñu ko doon ubbee ak jongante gi doxoon diggante Bordeaux ak football club bi di Nantes Bordeaux bi nga xamante ne foofu la kii di Youssouf Sabaly di international sénégalais bi la di joué joué nañu démb seen jongante bu njëkk ci ajuma ji mu doxoon seen diggante ak football club bi di Nantes dañu mujjee témboo kenn duguloon ki nga xamante ni moo di sax di international sénégalais bi moom dafa départ ci jongante yi le maanaam la woon ci yooyu la jongante moom nag mu ngi joué li nga xamante ne moo ay dernier année foofu la ca Girondins Bordeaux gannaaw bi nga xamante ne ki daaw 12 match képp la joué foofu la ca Bordeaux absenté leen lu toll ci 15 yi nga xamante ne gisuñu ki nga xamante ne moo di Youssouf bu ñu te ki nga xamante ni moo di Angers bu Sada Thioub dóor Dijon benn bal ci dara geneen jongante gi ñu koy xaar bu 19 heures jotee mu dox diggante Rennes bu mbay Niang ak Edouard Mendy war a jàkkaarloo ak football club bi nga xamante ni moo di Lille bu 19 heures ci ngoon jotee lay doon.